gis ngeen akapes la fa xew te booba ñoom ñu ngi ci kaso bi ñu naan buuba mii mës naa ko dégg mu ne nañ leen génne bala ñuy nekk ci kaso bi di gagné premier tour parce que bu boobaa gàcce dina am loolu la yàlla def donc ñi xam politique ñëpp xam ni ñuy mesurer politique gis nañ ko mu nekk volonté de rupture bu peuple bi jël président nag ku déglu ay waxam euh, li ma jëkk a marqué mooy li ma wax sànq fàttewul fa mu jógee parce que il est venu loin fa ñu jógee dafa sori fàttewu ko li fi jot a xew ak bakkan yi tëdd fàttewu ko bewul benn yoon naturel am boobu mu nekk euh, ñàkk ci complexe xam nag li ko yàlla defal parce que nag président bu falu ci Sénégal gi defe naa euh, jafe na te newuloo yàlla ak diw newuloo lobby ba ba jóge feneen boo daan